ci marché Zing bu Pikine fii nag daanaka démb lakk gu métti moo fi jot am diggante 3 heures du matin ba léegi daanaka am na sax sapeur pompier ju fi nekk ba léegi ak police ngir constater li nga xamante ne euh, moo di euh, dégâts yi la nemmeeku nag mooy am na place yoo xam ne dafa lakk ba jeex tàkk. maanaam amul dara loo xamante ne génn na fi mu nekk lu métti ndax ñi nga xamante ne sax jot nañ fee investir. ay millions yu bëri yoo xamante ne daal dinañu koy ñàkk ñenn ci ñi nga xamante ne sax waxtaan nañu ak moom ña ca dañ doon dañ doon daal di sëngeem ndax ku ne xam na ne daal di investir mu xëy lakk ba jeex métti na lool lañu ñu nemmeeku nag mooy ba tey xamuñu lan moo sabab euh, gilee lakk waaye nag ñenn ñi nga xamante ne sax dañ leen a laaj ña nga naan am na ñuy rumeur yuy daw waaye ñoom ba tey kenn mënu laa wax ne lii moo sabab euh, lakk gi voilà mu nekk lu métti loo xamante ne daal ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci marché Zinc ñu ngi koy jot a dund ñenn ñi nga xamante ne nag jot nañ leen interroger la ñu xam le ne mooy sapeur pompier ayu jàmbaar lañu ndax daanaka depuis 3 heures du matin ba léegi ñoo ngi fi ngir fay lakk bi waaye métti woon na lool ci ñoom ndax am na sax yoo amuñu woon sax yoon bu ñu daal di duggee ci marché gi ngir mën a fay li nga xamante ne moo di lakk bi comme ni ngeen koy gisee noonu ci image yi am na sax safara soo xam ne ba tey yaa ngi gis saxaar si di jóg sapeur itam mu ngi fi ba léegi ndax am na côté yoo xamante ne ñu ngi nemmeeku ne saxaar bi euh, dañagul lool. donc euh, comme ni ngeen ko constaté wala ni ngeen koy gisee noonu ci image yi mu nekk lu métti loo xamante ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo ngi fii ci marché Zinc bu Pikine euh, ñoo ngi koy dund nekk na loo xam ne itam lu ñuy faral di nemmeeku la ci marché yi. donc une bonne fois pour toutes war nañu xam lan mooy sabab lakk yi ngir ñu mën koo réglé parce que chaque année sax mën naa ne wala chaque mois di nga dégg ne am na benn marché bu lakk fii ci Sénégal mu nekk loo xamante ne lu métti la lu commerçant yi di dundu te en général lu ci bëri euh, dara du ko waral lu dul euh, filu courant yi nga xamante ne euh, dañ koy faral di takkalante loolu sax mooy faral di indi jëye yi nga xamante ne mooy am ci marché waaye fi nga xamante ne nag moo di marché Zinc bu Pikine ku ñu laaj daal day wax ne dara xama xamaguñ sax la nga xamante ne euh, moo sabab lakk gu métti gi nga xam ne daal ñu ngi koy dund jamono ji ñoom ñi nga xamante ne euh, ñoo di commerçant yi ñenn ci ñoom sax la ñu bëgg mooy nguur bu Sénégal daal di leen di dimbali ndax euh, lañu ñàkk ci xaalis bëri na lool te ñoom dañu am sax ay njaboot yoo xamante ne ci ñoom la ñu daal di sukkandiku. voilà mi ngi noonu comme ni ngeen koy gisee ci image yi. gaa yaa ngi noonu wala ñenn ñi nga xamante ne sax ñoo moom seeni place ñu ngi ñëw ngir xool li nga xamante ne jot naa bañ a lakk ñu daal di koy jéem a soowee naam sax am na ñoo xam ne ñoom euh, seeni place dafa lakk ba jeex tàkk génnewuñu euh, dara mu nekk lu métti métti loo xamante ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo amoon place fii ci marché Zinc bu Pikine ñu nga koy dund voilà ñu avancé ci kanam rek euh, jéem a yeneen place yi nga xamante ne jot naa lakk fi ñu nekk nii nag euh, mooy marché poisson bi mu mel ni fii am na ci ñoo xam ne sax ñu ne fii la lakk gi daal euh, tàmbalee Euh, doog a dem fële ci kaw gis comme ni ngeen ko gisee noonu ci image yi daanaka am na ci euh, yoo xam ne sax fayagul euh, saxaar sànni noonu ba tax sax sapeur mu ngi fi ba léegi Euh, di def liggéey bu mucc ayib ñi nga xam ne sax ñooy commerçant yi nee na ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xamante ne sapeur pompier ñoo nga ko doon def ak ñi nga xam ne sax ñoo dëkk ci côté marché bi daanaka ñoom ñëpp ñëw nañu wallu leen ngir ñu daal di euh, fay lakk gi naam sax métti woon na ndax amoon dañu doon am jafe ki nga xamante ne moo di sapeur amoon na jafe-jafe dugg ci biir euh, marché bi ndax sax amuñ jotu yoon a am li nga xamante ne moo di yoon sëñ non mënuma wax ah. borom sa bële da ngay waxaale wax wax da ngay xool ñoom nga wax nga wax voilà. da ngay tànn soble yu lakk lii soble yoo xam ne ñoroo yi moom la ñuy tànn di ko dugalaat waaye mais xam naa li génn tamit lu bari. waaw man daaw la laa tudd. waaw mais lii rek la ñu mën a def jéem a for yoo xamante ne yàlla lakkuñu teggu ne ndax mënuñ koy xool mooy gën a yàqu quoi loolu moo tax ñu def nii waaw métti na trop nag mais nañ sant dañu sant yàlla bu baax xam ne ñun ñoo ko mën a am mais mënuñoo am waaw ñu sant bu baax métti na trop. lii nii am na ay côté trois heures quoi mhm. waaw ci la ma booyee woon yi mais daa fekk sax may nelaw man ay six heures laa egsi fii waaw métti loo xamante ne métti na te mënoo ci dara moom da sant xam ne yàlla borom bi moo la ko joxoon su la ko xañee tamit dañuy sant waaw ak la ci ñun fii soble lañ fi doon jaay dañu doon importer soble quoi di jaay jaayat jaay soble waaw autorité nga xamante ne jot ngeen a ci mbir mi. non xam nga ñun moom dañoo nekk woon tàngooru yaram moo tax ñun ñoo xam sax du ngi ñëw wala ñëw waaw moo tax instant yii ñun. est-ce que xam ba léegi nii xamuñu na waar daal dañoo daal marché baa ngi tàkk kii côté bii la rek marché poisson na de fii marché lujum bi moo nekk nii quoi waaw. voilà ji moom mi nga xamante ne sax dépôt soble la yoon donc dañuy obligé di jéem a jël yi nga xamante ne jotuñoo lakk ngir daal di koy mën a sauver ndax nekk na lu métti loolu ñëw tim sa place ne mënoo ci génne eh, dara waaye terewul ndeysaan ñi ngi ñoo nekk di jéem soble yi nga xamante ne jotuñoo lakk ngir mën koo jël ngir mën koo jëfandikoo mi ngi noonu ci image yi ngeen di gis daanaka ñu bëri ci ñoom seen place yi dafa lakk ba jeex tàkk amul dara loo xam ne sax daal dinañu koy euh, génne ñenn ñi nga xam ne sax euh, seen i place am na leneen lu lenn lu ci jot a génn daanaka yu ci bëri mënatuñ koo sax euh, daal di jëfandikoo ndax état ba nga xamante ne nekk na ko. thank you Thank you. Thank you.